nous poser question euh, nous nous sommes la coalition Benno Bokoyaka. nous sommes une instance de la majorité présidentielle une instance de politique donc pour ki nous l'a dans la république la Voilà, politique ñun une politique la coalition Benno Bokk Les gens au Sénégal mun nañ koo bañ a nettaliwante suñu biir ndax ñëpp ci teg seen bët dafa am façon politique bu xew ci réew mi bu ñu xamuloon ci taarixu senegal ndax xar kanamu senegal mooy démocratie boo xam ne lépp lañuy ñuy waxtaane ci jàmm ak salaam amul waaso amul diine ñun ñëpp ñoo bokk yem bu am ben homme politique bo xam dafa am tour te dañ ko war di tudd il s'appelle Ousmane Sonko mo fi xey ne président Macky Sall bugul Diomaye mu don lu reuy bu aucun acteur politique n'a jamais osé dire mo fi xey bés ne dañ ma convoqué tribunal dama jote ak ben jank li mu njëkk wax sax moy dewuma fa musuma fa dem loolu lañu njëkk bind ci page Facebook

je vous appelle à un mortal combat Joglen ngeen il est le premier responsable et même l'unique responsable de ces 14 mois motax lolu dinañ ko cette dérive politique bi sentir nga xamné Ousmane Sonko ak faut que tous les acteurs responsables du Sénégal dans les sphères sociales dans les sphères de la société civile dans les sphères politiques nous différencier sen bopp ci li nga xamné ne la Ousmane Sonko di woté pour tal réwmi ak ñom ñi nga xamné am nañ ay action politique am vision politique ndéem outé nak ñun mais tamu outé ak ñi woté ñu song juge song les institutions song ci si ak ñom vous êtes am homme politique timidique meeting di le président de la république des 17 millions de sénégalais les mom, président de la république dina ko voilà wala c'est un appel au meurtre au président de tous les sénégalais tous les patriotes et les démocrates véridiques et patriotes pour le Sénégal doivent dénoncer ce style cette méthode bi nga c'est fondé sur la violence piétiner nos institutions à tout va

ci fàndu politique ci fàndu diine ci fàndu cosaan ak aada ba tax fii Sénégal tey Sénégal doon na réew moo xam ne àddina yépp moo ko teg bët ci stabilité ci démocratie am ci mun a joxlante ci jàmm ak waxtaan amul xuloo ci diggante diine katolik amul xuloo ci diggante waaso xamuñ kan mooy joolaa kan mooy kan mooy jullit kan mooy katolik ak ci gëmul dara lijjantiwuñ ko guléet moom ak ñamu àndal

Il lañ fekk institution sociale yi nga les ressorts essentiels yu fondé C'est démocratie C'est Fallou Serigne Fallou taxaw Senghor catholique le premier président du Sénégal qui Senghor C'est nous qui bâtir une nation ni Ousmane Sonko se trompe de pays et de république il se trompe de nation motax dina wuyju justice ce que tamit nos institutions ont la force et la mémoire la sagesse et l'équilibre pour yobou ko devant la justice parce que le que sen lié. te warna xam une bonne fois pour toutes que le Sénégal du rew buñu ñuy Si di tal ku yakarne ne nga Sénégal sa bop ngay tal kenn mënul tal Sénégal sénégalais dinañ ko défendre avec la dernière énergie te dinañ défendre ces institutions

ca nañ ko jote won ndax ño xamné sen xel ak sen projet politique ak sen idée pour développer Sénégal yépp ñaari kàddu la benn bi moy 3 troisième mandat 3 troisième mandat gatt na ci ambition politique 3 troisième mandat gatt na lol ci gis-gis pour développer réew mi deuxième bi moy soko fi waxé dinañ ko tal mais li ngay tal dang ko bëggul on connaît tous la sagesse du roi Salomon ci doom ji ki noonu naan da ko jur kii ne juru dafa jël jaasi bi ne day dagg xale bi ci nangu ñu daggo xale bi ñu ne ko yow juróo ko ñun Sénégal kenn du ko taal te waajuñ ko taal te duñ seetaan ku ko taal donc loolu mooy li nga xam ne mooy li ñu bëggoon a sànni ci kàddu di dolli di waate jàmm ndax ndax jàmm ci la lépp xaj ñun li Sénégal yépp war a xam mooy suñu njiitu coalition ak le président Macky Sall li ñu woote mooy jàmm waaye am fulla itam ak fayda ak détermination ba nga xam ne lu nit def pour bëgg a yàq li nga xam ne mooy sunu réew ñu taxaw taxawaay bu ko raw ngir sàmm ko di leen gërëb di leen sant